ñëwaat nañ ànd si ak yéen ci nga xam ni mooy waxtaanu koor ànd si ak waa forme Sénégal ak Jàmm TV nga xam ne ñoom lañu ànd ak yéen di leen may seen émission waxtaanu koor gi chaque jour ci koor gi tey ñuy indi benn waxtaan bu am solo mooy danger yi nga xamante ni internet beeg Facebook beeg mbooleem programme de communication yi am na ko danger yi ñu am ak njëriñ yi nga xam ni am nañ ko ndax loo gis rek am na positif am na négatif am na loo xam ni baax na am na loo xam ni baaxul te jamono bii kenn mënul dund sans nga dund ak yooyu noonu waaye il faut nga demee ak sa xel moo tax benn waaye dafa jël doomam di ko dénk ni ko yow sama doom maa lay dénk ni Google ak Facebook Twitter WhatsApp ak mbooleem programme de communication yooyu yëpp maa ngi lay dénk ni la yooyu yëpp bahrun amiqun daat fihi axlaaqu axlaaqu yi géej la goo xam ni géej gu xóot la boo xam ni moraalu nit ñëpp sànku nañ ci moom mboolem Facebook ak WhatsApp ak Google ak ak mboolem programme de communication yooyu yëpp daal yi ci gis yooyu yëpp géej la goo xamante ni mboolem moralu nit ñi sànku nañ ci kenn xamatul foo jëm wa saqatat fiihi al uqulu mboolem xelu nit ñëpp sëgg nañ si barot si ndax ñooñu am nañ si ñoo xamante ni ay jeunes lañ am si ñoo xamante ni macha allah ay mag lañ ñëpp daanaka sànku nañ ci loolu noonu sànk na leen. kon yow sama doom maa ngi lay dénk nga moytandiku ko nga def très ci moyens yooyu nga xamante ni moom la nit ñi xewal léegi koor ànd na ak loolu. koor mën nga kaa yor di connecté loolu neex nga def mais na ngay fexe ba dugg foo xamante ni yàlla bëgg na ko yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tamit bëgg na ko mu ni ko laa takun kat zuba bi yaqifu ala kulli shay'in yow sama doom bul mel ni weñ bul mel ni comme des mouches mooy ay weñ weñ fu ko neex lay tag lu baax ak lu bon sobeek lu dul sobe lay lay tag lu ne mu nekk ca lu ne mu bëgg kaa jël yow sama doom bul mel ni weñ nga xamante ni bul nekk si internet bi rek lu baax nga yër lu bon nga yër lu baax euh, lu loo xamante ni lu yàq deru ni ki nga koy yër loolu lépp bu ko def yow sama doom fa yanqulu al amrada min duni an yashura soo ko defee di nga dem ba weñ su dee fu nekk lay takk lu baax lu bon di nga dem ba jël feebar yóbbu ko sa kër doo ko xam mu ngi mel ni nga nekk si internet bi rek yu bon nga nekk si dem di def lu bon di ko defi si internet bi di yër lu bon di ko vu di ko commentaire lu ne nga def ko di ko partagé yooyu mën naa dem ba wàll la jikko jooju nga xamante moom nga doon moom nga doon seetaan kon sama doom maa ngi lay dénk nga moytandiku yooyu nga xamante ni baaxul si internet bi mun innal internet suuqun kabirun neen internet benn marché la boo xam ni marché bu rëy rëy la waaw marché boo xamante ni la wala ahada yuqdimu silatahu majaanan marché amul kenn ku fay nekk koo xamante ni da ngay jël sa marchandise di ko jaay di ko maye di ko joxe gratuit loolu amul marché ñëpp dañuy jaay internet noonu la mel ña fa nekk ñëpp dañuy jaay seen marchandise ku nekk rek marchandise nga di ko jaay ñu koy jëndee mooy vie yu bari ku la pële vie rek moo la gën a jarle moo la gën a jarle ay marchandise kon bul defal nit ki promotion koo xamante ni la muy wane si sitam dara baaxu si yow bu ko def di ko di ko vie di ko di ko si am bàkkaar bu pare di ko di ko jaayal marchandise ndax vie yooyu noonu mooy tax marchandise di gën a di gën a dox yow sama doom kon mag lay dénk nga moytandiku internet ci nga xamante ni dañuy partager yoo xamante ni dara baaxu ci dëppoowul ak njàngale yàlla waaye dëppoowul ak conseil yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëppoowul ak suñu culture ñun waa Sénégal ndax ku ñu xam xam ni dañu am culture yu baax am ay valeurs yoo xam ni valeur yu baax la ñu incarné ko si mag ñi nga xam ne mooy mag ñu baax ñi kon war ngaa fexe ba valeurs yooyu bu ko nekk di ko yàq yow yow sama doom ci ci li nga xam ni mooy ay internet ak yu mel ni moom maa ngi lay dénk yow sama doom fat fatha rawabit maa ngi lay dénk nga moytandiku di ubbi ay lien lien boo gis jëm kaa tijji bu ko def waaw bul li nga xam ni ay quel ay certain ndax lien yi yi si ëpp nee na fa inna baada fuxun wa tadbirun nee na lien yi yi si ëpp ay piège la piège la yoo xamante ne mën na la jàpp kon bu ko bu ko tijji bul bul gis lien boo gis rek nga tappee cliquer ko pour mën see dugg yow sama doom nee na bu ko def ndax mën na nekk piège boo xamante ni ah mën na partager sa mbooleem données personnelles yoo xam ne kenn bëggul woon gis ko mais am na foo xam ne soo duggee rek macha allah sa données yëpp mën naa partager wu te kenn du ko xam te yow mën naa am sax doo ko xam mais nit ñi ñoo koy xam naan kon kii nii la mel fekk meloo noonu daa am lien boo cliquer rek sa nga nga àndaale si sa sa données personnelles yëpp nit ñi xam ko kon yow sama doom maa lay dénk fexeel ba am na danger am na côté boo xam ne man positif la am na loo xam ne côté boo xam ne négatif la kon yow sama doom maa ngi lay dénk nga moytandiku bu baax a baax a baax a baax si internet ndax internet. ah mu ngi noonu daal day dund mën mënuñoo dund sans moom waaye nag mën nga see defaree sa adduna waaye mën nga see yàqee tamit sa àdduna yow sama doom mu ko yow sama doom maa lay dénk iyaaka wa nashra nakaat wal ishaaat bul piblier ay balaak ay rumeur lu jot rek nga publier ko am na ñoo xamante ni dañoo gaaw si publier am na ñoom bala ñoo lire sax bala ñuy vie la ñu piblier ba pare di rëccu nag commencé regretter loolu kenn du ko def moytandikul di publier ay rumeur ak ay blague yi nga xamante ni amul benn njariñ surtout maa nga koy partagé di ko publier si ay groupe yoo xamante ni groupe yi nga bokk yëpp bu ko def ndax loo publier rek ku ko liir donte lu baax la am nga si tuyaaba waaye su fekkee lu bon la tamit am nga si bàkkaar yow mi nga xam ne yaa ko publier ndax lu bon kenn du ko fesal lu bon kenn du ko tasaare lu bon kenn du ko wesaare yow sama doom maa ngi lay dénk maa ngi lay moytandikuloo yooyu nga xamante ni macha allah dalay dalay jural gàcce àddina jural la gàcce alaaxira mooy rumeur boo gis ak blague yoo gis rek nga koy publier yow sama doom bu ko def mu ni ko beneen ma lay dénk mooy qabla an avant nga avant ngay avant ngay commentaire benn mbir aw tusharika wala avant ngay partager benn mbir fakkir in zalika yurdi llaha taala aw yurdi aw yurdibuhu bala ngaa partager benn mbir xoolal ba xam mbir ma ngay partagé neex na yàlla wala naqari na yàlla wala soo ko partagé yàlla mere la si wala déet bala ngaa partagé benn mbir bala ngaa commentaire benn mbir tamit fexeel mbir ma ngay commentaire nga xool ba xam yàlla bëgg na ko wala yàlla bañ na ko wala yàlla soo ko partagé dina la si fay wala soo ko partagé yàlla dala si duma ay duma la jural bala ngaa partagé sawar làmmañ ak sawar partagé bum la jaral ngay partagé loo xamante ni wala ngay commentaire loo xam ni ëllëg si biir yàlla mën na la see duma mën nga see jëlee merum suñu borom bu ko def yow sama doom moytandiko lii nga xamante ni tamit euh, mooy commentaire lu bon kenn du ko commentaire lu bon kenn du ko siwal su fekkee fu ñuy yàqe deru nit nga gis ko si Facebook bi wala gis ko feneen furul Facebook ak mboolem moyens yi nga xam ne moom la nit gi di yor di ko di ko di ko connecté kon fexeel ba moyens yooyu yëpp loo ci gis loo xam ne day yàq teru nit nga nëbb ko bu ko partagé moo xam xam nga nit ki wala xamoo nit ki mais ti ngaa gis lu bon ba partagé ko bu ko def nee na yow sama doom beneen bi mooy laa tuawil ala sadaqati man lam tarahu aynaaka nee na bul compter bul basé wu si amitié koo xam ne gisoo ko nit demandé la ami rek nga accepter ko sa ami dëgg la ndax amitié Serigne Cheikh nee na chaque jour nga xam benn nit bénéfice la chaque jour nga xam benn bénéfice la accord mais du ko la demandé ami Facebook rek nga accepter ko ko ndax am na ñoo xamante ni dañ lay dañ lay jaay am na ñoo xamante ni xamoo ñoom ndax ami boo gis rek am na ami en commun yoo xam ne am na ko ñoo xam ne yow xamoo leen ba pare mën na nekk ñu baree bari ñoo xamante ni mën na am seen culture ak sa culture yow bokkuñu kon nanga fexe ba bul compter bul basé wu si amitié koo xamante ni mosoo kaa gis yow sama doom maa ngi lay dénk loolu loolu wala taxkum ala rijali min min xilaalin maa yaktubuuna fa innahu mu nak mun fa innahu mutanakkiruun yow sama doom maa ngi lay dénk bul juger nit ñi nga xam ne yaa ngi leen di gis si internet bi la ñuy bind ak li ak li nga xam ne ñoom ñu ngi koy def di ko di ko di ko bind nga xam ne ñu dañuy dañ ndax ñoom dañoo déguisé wu waaw dañoo déguisé wu kon bul basé wu si ñoom ñooñ mu la trompé yow sama doom ndax nit ki nit ki melul na mu bind melul na mu wax nit ki na mu jëf la mel am na ñoo xam ne dañoo nekk si internet bi rek déguisé wu meluñu nenn kon bul basé wu si ñooñu bu leen jugé yow sama doom kon maa ngi lay dénk nga moytandikoo nga yor ñaari paaka ñaari boor bii nga demee si lu baax bii nga demee si lu bii nga demee si loo xamante ne sa xel la nga si macha allah nga si jëfandikoo yoo xamante ni yàlla bugg ko yow sama du maa la koy dénk nga moytandikoo loolu ndax ñoom fa suwaruhum mudd bile mudd mudd bile jatun seen fot seen foto yi dañoo nekk loo xamante ni macha allah dañ kaa duble dañoo doublé seen photo ñun ña la ñuy publier meluñu noonu yenn saa sax nga jël koo xam ne photo profilam nga defee noonu la mel fekk du moom moom du du vocal mukk day écrit rek fekk photo profilam moo melul noonu daa duble ay photom daa double daa double visage am kon yow sama doom maa lay dénk bul bul bul juger ñi nga xamante ni macha allah seen bind gis da ngay gis seen bind rek te gisoo seen jëmm bul juger bul compter si ñooñu yow sama doom yow sama doom lay dénk tamit bul bul partagé bul blessé koo xamante ni macha allah li nga ko xamal li nga ko xamal lu baax lu bon la bu ko blessé di ko publier ba ñëpp di ko gis yow sama doom mag lay dénk laa tajrax min jaraxika li nga xam ni sa blessé yi nga xam ni ne te blesse pas de blessure li nga xamante ni macha allah soo ko defee day gaañ nit ah yow sama doom bul ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bul gaañ kenn bul jéem a gaañ kenn yow sama doom bul partagé loo xamante ni su ko gisee yàq nga yàq addunaam ndax nit ñi am na ñoo xamante ni loolu rek la ñu sawar xamal nit loo xamante ni macha allah su ko defee soo ko publier adduna bi ñëpp ba ko nee na loolu yow sama doom soo ko xamelee nit bu ko publier ndax adduna nit matul ndax nit ki loo koy loo koy ñaawalee bala ngaa dee yàlla nattoo la ko yow sama doom maa lay dénk ngay jëfandikoo sa xel ci internet maa lay dénk ngay jëfandikoo sa xel ci Facebook ak WhatsApp ak Twitter ak mboolem ak Google ak yu mel noonu ak mel ni ñoom ñëpp maa lay dénk yow sama doom nga see jëfandikoo sa xel ndax am na ñoo xamante ni leen rek la sawar bëgg ay vues jaral na leen sax ñu ñu ñu ñu ñu déguiser benn image nii la mel te fekk soo si duggee macha allah loolu melul noonu. kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne mooy suñu suñu leçon tey bi loolu lañ indiloon kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yow mi ndokkalee ci weeru koor shahru ramadan moo bari ngëneel yow mi ndokkalee ci இங்க